à ses dafa jël benn ganaar dindi plume yëpp. suqi ko suqi ko ba mu set wet jël ay graines doxantu di ko sandi si suuf ni ganaar bi daw di lekk graine bi mu expliquer la douleur malgré la douleur l'instinct animal moo gën a fort faw mu lekk loolu tax dóor bi est-ce que c'est nécessairement ce qu'il faut Hitler n'est pas une référence pour nous. non mais attention l'exemple non attention l'exemple non dama ne mm. dama ne mm. l'exemple mm-hmm. et je suis désolé peut-être que ce n'est pas une référence pour tout le monde. non nañu wax suñu sëriñ yi ak suñu magu diine yi. waaw man waaw mais mais non man le Sénégal n'a pas commencé ak suñuy sëriñ Sénégal dafa commencé. yàgg na. moi je vais plonger y a le le Mandé c'est douze. <laughs> loolu yëpp Jolof bu muy jël indépendance c'est douze. Ah, douze wala treizième siècle non ça veut dire faw faw. Ah, non faw faw c'est-à-dire le Sénégal ne s'arrête pas à une époque. oui c'est pour cela oui c'est pour cela que je dis. Ah, on a tout faux. Oh. nos référentiels sont mauvais. Mmh. Parce que la puissance, la véritable puissance, elle n'est pas dans elle n'est pas elle n'est pas dans la violence. Mmh. La puissance n'est pas dans la violence. la violence est une impuissance. Parfois la violence est utile. Mais mais mais oh, la violence est utile. Moi je frappe pas. Maître dit la violence est parfois dama ne dama ne dama Sénégal lañ nekk. Sénégal lañ nekk. man sama doom su defee lu mu war a def warul def ah dama koy fete. du ma ko gaañ mais dinaa ko fete su ma ko teree mu bañ dinaa ko dóor. xam nga dafa am dara lu am. wax moom ba pare. xoola moom laay wax nii ah. man. bu ma mënee compter ñaata yoon la ma ndey soxna mbubb jël daal sànni ma ko. ay millions de fois la. cest à am na loo xam ne c'est des acquis kenn waxul dóor doom gaañ ko mais xale des fois aussi ceinture da cee baax voilà loolu moom laa yoon ñun fii Sénégal lañ nekk ñu ay Allemagne Italie ak ay Rwanda ak ay Yoruba fii Sénégal la cest maintenant doom il faut utiliser la méthode de Ibadou morceau la ñuy dooree seen jabar non non pas jabar déedéet déedéet dóor jabar kenn wax fi dóor jabar non non non pour wan la ni rek c'est pour que ça ne soit pas violent non jabar moom kenn wax ko malal malal bu ko jabaram tooñee ni subhanallah mu bàyyi mais mais mais bon dafa am ay acquis suñu suñu réew yi aussi xale yi des fois dañ leen di yaree ah. tuuti kii te loolu c'est des choses yoo xam ne tant que c'est pas ah, ah des fois ah. mais aussi ñi ñuy toppandoo mm-hmm. mais fessé fessé en toi ça veut dire quoi mm-hmm. c'est pas méchant. waaye tàpp rek. tu ne frappes que quand tu es irrité. ça que yow même il faut que mu am lu lu la dal yow sa bopp. pour nga mën a dóor. est que tu comprends ça loolu tax ma ne. loolu vous parlez c'est-à-dire pour nga solliciter la violence. lan moo lay dal yow même lan moo lay dal. mais pas toujours quand tu es héritier parce que man il m'arrive moi <laughs> dans le passé. Mm-hmm. parce que suma doom yi mag la léegi. mais il m'arrive dans le passé suma doom bu defee dégâts yi dama koy taaj. mu expliquer ma ma wax ko ba pare ni ko lii moo tax ma lay dóor. et je le corrige. ça c'est bien et il l'accepte. courageusement dana saf de dana saf de mais il comprend lan moo tax ma koy dóor. sama doom mooy seetaan xam na ni au moment où je le fais je ne suis pas irrité je suis très calme. ah ben oui mais je suis très calme. mais c'est justement une autre forme c'est une autre expression de quand tu es dans un état d'irritation. Ah, mais Charles il faut que tu as raison que c'est pas bon de faire. non non non boo munee defal ni man. non man munuma. ah comme nga wax bi fa la man sam papa dafa ne boo munoon defal ni man. ñu nga ne du def ni yow. <laughs> non xale moom solo rek mooy il faut même bu ñuy dóor ah même bu ñuy dóor ñuy joxe les raisons. voilà li père wax c'est ah, bien ah, parce que allah kulli àll dóor bi du solution. amul ci benn réew amul ci benn jafe-jafe boo xam ne am na ci àdduna violence faj ko mënul ne. toujours discussion autour d'une table lay mujjee. donc même buy dóor sa doom. je peux être d'accord si boo ko joxee raison yi tax. bu koy dóor mais dóor bi moom dóor bu mën a mu mën a gën a baax ndax bi moom. donc on jàpp naa ne xale yi tey suñu doomu tey ak suñu nu ñuy dundee tey xale yi bu leen waxee dinañ dégg jàpp naa loolu discuter ak ñoom parce que des fois dañuy sous-estimer nous dañuy sous-estimer l'intelligence que peut avoir nos parce que looloy tax sa doom def dara ci mbedd mi wala nga gis ko ci vidéo wala si dara nga am surprise parce que s'il est assuré s'il est assuré d'avance euh, dara du ko ci fekk il va le faire. Oh, mais non, non, non, mais même des fois et alors léegi ah. après dóor bi nag. mais ñun ñun quand on était plus jeune nos instituteurs suñu instituteurs voilà suñu instituteurs. mais ñun ñu dóor ñu mais non mais après dóor bi nag. monsieur Diallo monsieur voilà. c'est de la violence laajal monsieur Diallo. <laughs> waaw mais loolu mooy tax xale bi Boubacar Diallo oui. waroon sama professeur. loolu mooy tax xale bi jàpp loolu mooy tax xale bi jàpp léegi finalement lépp lu ma amati su ma ko mënta faj. non non naa utiliser la violence. looloo tax tax tey. violence yi gis nga ça a rapport de il ne faut pas dire que oui non non nous sommes dans une société boo xam ni yi ñu indil fii. non mais xaaral ma eggale. Ah, il ne faut pas dire que nous sommes dans une société gis nga grand booba depuis si boobu ba léegi da ngay yow da ngay. da ngay sous-estimer da ngay sous-estimer l'ampleur de cette violence là. non non pour grand Sarr aussi dire que est-ce que amul super médiatisation mais c'est une violence qui existe depuis il faut que ñu xulli ko ñu xool ñu xam ni on est dans une société qui qui devient de plus en plus violente pour mën a a jël ay solution qu'il faut mais bu ñu ci toogee rek naan non euh, ça va euh, ça peut aller là là là suba dañuy xëy rek nekk ci euh, loo xam ni ni dañu xam fu muy jóge donc ça va de plus en plus mal il faut que ñu xam ko ñu xool léegi yan étude la ñuy def est-ce que am na ay dispositifs yu état yi def est-ce que mën nañ prévenir prise en charge bi naka lay def ci par exemple par rapport aux violences faites je voulais le dire gëw ma ni ci état du Sénégal jàpp ma ni am na par exemple benn centre boo xam ne ni par exemple état teg ko fi pour que ku jigéen ku ñu violenté ti nga mën fa dem chiffre yu ñuy jox kës néew AGS moo koy joxe à travers ses boutiques mm-hmm. mais état du Sénégal ministère de la de la femme et de la famille mm-hmm. yan dispositif la ñu pour mën a def une prise en charge pour ñu mën ko étudier ñu mën a ni dans quelques années après ñu ni en 2024 amoon na tant de violence si tant de violence yi ñii lañ ci def prise en charge psychologique wala prise en charge euh, wala réintégration sociale tu vois Ah, ça c'est ah, que ñu bàyyi ci xel. non parce que ñii xoolal yow ñu ngi fi een nii. seen seen seen <laughs> mm. seen agenda. agenda waaw mais déglu dégg nañu déglu te doo ngeen fi indi di ko déroulé déglu ma nag. ah da laa déglu waaw waaw seen agenda ngeen ne parle pas. agenda féministe non du ah. sax féministe parce que tu sais am na nit yoo xam ne euh, des femmes ñu indépendant ñu émancipées mais aussi dañuy teg affaire bi ci yoon dama ne tey jii nii li ngeen ñu fi jéem a loo kenn cautionné wul violence kenn minimisé wul mbir yi mais dama ne la. tey jii nii boo leen bëggee toog ak sénégalais yi ne ko man Bouba Ndour mi ah bu bu Philippe defee lu mu war a def ah la warul def ma tere ko mu bañ. ah damay jël yar fët ko mu mu bu ëllëgee mu ne sama papa daf ma tere li ah. bañ ma bañ parce que Elimane Ndour noonu la ma yare te mhm. te rëccu ma ci dara ah, wax fa dëgg yàlla donc am na loo xam ne il faut pas ngeen jéem ko dugal on dit pas que jël leen ay xeer ngeen toj seen bopp doom mais ñun dafa am nu ñu yaree ah te xale bu déggul ah ci ñun ci li ñu màgg yëpp mooy waxuma la yow yaay dóor sa da ngay dóor sa sa sa voisin di dóor pas boo xamul di dóor bu la rombee ci mbedd mi ngay def la war a def mu ubbi sa nopp bu papa papa ñëwee dana naan ah merci ba pare dolli ko beneen mais ça n'a jamais été boo xam ne ngeen bu ko ngeen bu ko amplifier yóbbu ko ci beneen mais c'est vrai parce que chaque coin dans ce pays là am na fu ñuy wax pas allemand pas allemand mooy pas yoo xamante ne mais qui n'ose pas faire du bruit bu génnee jàppale te corrige directement. amul kuy sa papa mais loolu amatu euh, mais est-ce que ça existe euh, plus. ça marche ñaay bi mooy wax. kenn du ma kenn musuma dóor. ñaay cokkeer ay dóor kat rek fa ne. non non mais ça n'existe plus les pas allemands là ça existe. non moi je suis pas allemand sax. fu fan nii nii nii nii nii. non léegi boo laajee doomu jàmbur papa wala yaay ñëw ñu ne. Ah, problème bi lan la mënu waaw mënuñu fi toog rek tam di wax ce qui le passé di idéaliser di kii la réalité mooy la réalité mooy fii pas allemand amoon na autant mais ku dóorati doomam ci benn mu ne la lu tax nga dóor loolu c'est une a pas allemand yi ñoo war a dellu si waaw kon mais amatu léegi papis continue en trente secondes ma délewaat leen parole bi dama bëgg waaw Whatsapp pour wax sànq gis naa mu préoccupé trop pour qu'on puisse comprendre parce que maître chaque fois day wax c'est naturel. Hmm. moom mu ne culturel. il faut qu'on définisse la chose. si je comprends bien ce qui est culturel mooy c'est tout ce qui s'ajoute à la nature. c'est ça la définition. c'est ça on est d'accord. d'accord. mais maintenant pour violence bu fekkee ne injustice wàññeekul ne vous en faites même pas violence partout. muy hmm. Chine muy Burkina Burkina Faso Gueule Tapée. injustice dafa bokk ci cause violence. Mhm. tant que mu ngi perdurer. c'est une la violence sera crescendo. je suis d'accord. c'est une des causes injustice injustice bu njëkk xam nga mooy lan. Mhm. tabaski jot. nga xam ne sa jëkkër dara yoru ko nga ne ma boo muy boo muy indi lay fii xaru rek. c'est une violence violence la violence la. te ñoom ñoo koy def mais xar boobu utaloo ko sa jabar oui mais sa mais sa jabar. jàpp na sa ko non non bu ñu ba ni dañuy ut. xar boobu utaloo sa jabar pour yow sa bopp nga ko utal dama yow. paa bi ko sa jabar xar bi 5 heures du matin la koy indi. non malal malal malal la question. parce que bu ñu nee euh, da nga ne kii bu doon la réflexion am. Mm. mais ça la plus grande violence. pourquoi elle le dit léegi wax explique. la plus grande violence. il faut qu'on sur les termes aussi. <laughs> nga ne ko nga ne ko ne ko du moom boppam la ko defaral. waaw dama ni ko xar bi utalu ji. boppam la ko utal l'islam mi ko sant xar moom. dafa ko pour faire plaisir jabar ji elle pense que jëkkër ji moom la ko indil. dafa ko def mais jabar il faut aussi dans il faut aussi il faut aussi quand fait des choses parce qu'on est musulman ñu sant la nga rey sa xar bu jëndee sa xar que nga bañ a nekk di woy suuba léegi maa ngi ko di xar bu non. tu le fais pour toi d'abord. tu assumes que ni xar bi dama ko jënd accomplir sama devoir. sa jabar la man du ma moromu xaru congal. malheureusement ça ne passe pas. ça ne passe pas comme ça. il faut day jël. ça ne se passe pas comme ça. voilà dafa am dafa am dara leneen lu ci yokk. yow li nga def mèche bi kii bi nu mu tudd matière bi. matière bi. lii nii xam nga bii mooy bu old fashion bi bu yàgg bi seerul mais léegi dañ la ciy tegal bu kiim Kardashian bi. oui mooy greffage bi. Ah. yokk ko te moom ah. waaw moom mooy gën a xa mooy. 300000 400000 man non man les niveau type de femme yi ma xam. ah non yow moom ñoo jël seen bopp en charge. affaire de cheveux nag. non non non non non ñoo gérer seen bopp parce que niveau type de femme foofu. non non non qui se prennent en charge. mais regardez comment vous non mais faut vous dire comment vous êtes violente. Ah, ah oui et je vais vous dire pourquoi vous dites. des nouveaux types de femmes. c'est grave. vous pensez que jigéen ñu fi nekk Sénégal am na ñu bëri ñu bëgg a jënd quatre cent mille. non non trois cent mille. non non cinquante mille. non non quinze mille. ñoom c'est quoi. non non non non ñoom c'est des ban type de femmes. non non non non non xam nga yaa ngi yaa ngi transformé. c'est c'est mais c'est justement c'est ça en fait quand je dis le nouveau type de femme yi ma xam. dañuy assumer wu. c'est-à-dire même bu ñu amul possibilité. wuy ma rek bu dee possibilité amuñu possibilité wu jënd cheveux naturels bu bu quatre cent mille bu trois cent mille. seen mèche bu cinq cent francs bi ñu am. ñu mu ngi leen di doy. ñu koy utiliser di ko def muy def c'est plaisir. Fatou c'est ça c'est su may wax le nouveau type de femme loolu laa xalaat nouveau type de femme vous vous êtes mis à une altitude ça dit votre attitude. c'est quelle attitude. donc par rapport à vous et les autres types de femmes non non non non non c'est de la violence par rapport à tous ces types de femmes on ne fait pas de différence entre ñun ak yeneen femmes non non non ah j'espère non non non on peut pas faire de différence non non non dafa def comparaison non mais non non bu bu bu bu la distinction elle non non dafa def une différence. non non non non ma laisser m'expliquer hein. je vais m'expliquer parce que vous avez fait une différence entre ces femmes là qui peuvent être dépendantes peut-être et yi ñuy jël en charge ci ay kii man la man la man ñi ma xam ñeneen ñi ma xam ñi nga xam ni ñooy toppatoo seen bopp waxuñu lool de man dama ne bu ma nekkee xale lu góor waaw ñëw sama jam ma indi xar bu tolloog sama doole poos mu ne ma duma moroomu xaru cogal yaa ngi dégg bu ma la je ne le dis pourquoi cette femme elle le dit parce que en fait elle est dans la perception sociale mhm. elle est dans ce que pense le voisinage mhm. Mhm. par rapport a xar bi jëkkëram indi génn na ci génn na ci l'islam génn na ci l'islam et aujourd'hui toi quand tu dis les nouveaux types de femmes c'est par critique aux autres types de femmes non c'est pas par critique parce que moom quand il me parle des